asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokk yi bàyyi xel Ali Imran TV ñoo ngi leen di nuyu seen jotaayu alquranul karim majaalisul quran émission bu mag bi émission bi waxtaane téere borom bi subhaanahu wa taala afala yatadabbaruuna alquran am ala qulubihim axfaaluha borom bi nee na ndax du ngeen settantal alquranul karim kon ñëw leen ñu tadabbur ñëw leen ñu tafakkur ñëw leen ñu setantal alquranul karim ci biir Ali Imran TV lay amee ay bis gu jot Mbàkke Sylla dina ñëw ànd ak ay boroomi xam-xam yu seen xam-xam màcc ci alquranul karim imaam Aboubacarine Traoré kenn la ci ñoom ñu ànd waxtaane téere bi jéem ko setantal jéem ko firee ka faram fàccee ci biir Ali Imran TV abonné leen ci seen bi aimé leen vidéo yi commentaire leen ko partagé leen ko na yaatu ñu yokk daara ji doole te xam ne looloo ñu fi bàyyi te ñoo ko fi bàyyi seen jotaayu alxuraan a ngi noonu ci biir Ali Imran TV bu ko kenn wuute